ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci boor ak ci yëley boor bàyyi fàtt njaay nu ñoom tuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor siy jeeg gën gu ay ca mbokk kon jàngat bi boobu lañ leen di indil père mu dox ci diggante ñaari komba wala benn combat boo xamante ni ñaari ndaanaan ñoo ci doon bëri. Mm. kenn ki di Reug Reug waree fi nga xamante ni mooy Thiaroye mm. euh, kenn ki di Gris nekk doomu Fass. Mm. mu nekk ñaari mbër yoo xamante ni daanaka mën naa ne dër bi la diggante faas ak Thiaroye. Euh, ñoom ñaar gis nga seen état de forme yi ni ñu ni mu ni mu mel. ci combat bi. waaw jërëjëf Baye Diéry gis naa leen. gis naa Reug Reug seetaan naa ko ci mbapat yi ak tournoi yi. Uh-huh. bon kii tam muy uh, Gris 2. Uh-huh. ay comme sama gis naa benn mbapatam bu ma sonn bëri parcelle nag. Uh-huh. moom Gris bu ñu fa tegoon. moom Gris waaw moom Gris seetaan naa benn mbapatam foofu benn tournoi la woon nag. boobu laa ma seetaan mbapatam quoi. foofu uh, mais kii moom seetaan naa ko ci YouTube yu bëree bare yow ay combat ay champion yu mu daal. mais ñoom ñaar boo leen xoolee. xam ne bon ku ci ne yor nga forme mbër mais forme yi dañoo bokkul. lu tax ah voilà très bien ça xam nga forme mën ngaa gis bind bi. ñu hmm. taxawaay mais bind moo bokkul. bind ku xool nii rek sama wax nii bu ma ko def bu ma ko développé rek. Hmm. xam nga ne bind yi bokkul. Hmm, kii ngemb boo xoolee ngemb lii. dégg nga ki fooy bëre ndawam ak ki fooy wul bëre ndawam day am différence. lu leen luy seen différence. différence bi mooy ki fooyee bëri maanaam ndaw daf ci jànkoonteeg lu bëree bëri. jànkoon nax nañ ko daan ko ah pièce nañ ko daan ko. Mhm. yeewu na ci maanaam pièce ndëgg sërëx yu bëree bari jaar na ci jaar na ci xam nga fi nga jaar. Mhm. te maanaam par exemple léegi ni ma la ko mën a leer ak ñi seetaan. Mhm. mooy nga départ fi jëm Tamba. nga yàgg fee jaar. virage yu bon yi xam nga ko. kër-kër yi xam nga ko ruq-ruqaan yëpp tali bi neex a daw ak bi neexul da nga koy xam parce que yàgg nga fee jaar mooy niroowu na ki nga xam ne kii dafa màgg rek dugg ci làmb ñu xool xam ne fekk na magam di bëre. Hmm. mu dugg ci làmb ji ñu xool xam ne am na daay bi am na taay bi. Hmm. am na gabari bi maanaam taxawaay bi baax na. Hmm. kii bi nag ñu ne ko kaay dugg ci làmb moom it mu xool xam ne bu duggee ci làmb ji day lekk dara. parce que kàttan lay indi. waaye xam-xam ba day des. moom foofu la wuutee ak kii. kii day doomi mbër bu doomi bu doonoon doomi mbër te jàng koy du man dara. njàngaan kan mooy baayam xam naa ko. ñoo bërendoo njàngaan kan njàngaan moom Moodu Kan ko jur. Mm-hmm. Modou Kane moom moom la moo naan falang moom di nga dégg ci bàkku falang ñu naan Modou Kane ñaari yoon. Mm-hmm. ba pare nag moom ñoom falang ñoom maaseel jamono ñooñu la ñu bëree doon. Mm-hmm. Baye Modou Kane moom ak sama benn mbagu baay bu tuddoon Baye Njaga Maram moom lañ tuddee Baye Njaga Baye Njaga bii bëri. sunu doom. maamam mbër la woon. moo jural Fall Gabadine bi daan bëri kon xam naa leen ñoom ñi parce que ma Ibrahima mu ngi tudd uh, Omar Kane. Omar Kane Omar Kane mi ñu ko tuddee. seen yaay jot moom lañ tuddee sama sama sa kon am na lu ma xam ci booy bi nii tekkiwul nag ne. Hmm. xamante na ma ak moom nii sax ba ñu hmm. xamante. Hmm. parce que bu ñu mësee nuyoo benn la mais doom yu mbër la. ba pare encore mu jëfee foo fooyee bëre ci ndawam. maam gis nga mbaa pare ni mu koy tojee. tournoi bu ñu teg mu ñëw jël tournoi teg mu jël kon kooku xam nga xam na yoon wi. waa moo tax taxawaay bi. taxawaay bi baax na. kii am na gabari bi am na kii bi mais bëre bi mooy des. parce que kii muy Gris 2 bi invité nañu ma benn toog mu nga foon. xam naa bu seetaan émission bi dina ne mu wax dëgg la na may leen kii de bi ko yàlla jox nii gis naa ci moom bëri bëri boo xam ne bu jàngee bëri yokk xam-xamam hmm. mën naa def lu mag ji deful moom Gris 2 waaw mais nag loolu am jàng la hmm. foog mu am bon professeur bu nekk ci wetam boo xam ne bi day am na lu mu ko saman ba pare mooy fosaasam boobu am na mais nag yokk leneen hmm. day am leneen lu mu yokk ci biir bëreem su yokkee li ci bëreem day toj làmb ji parce Euh, kàttan gi ñëw na tubaarkàlla mm-hmm. taxawaay bi baax na. Mm-hmm. waaye nag foog nga yokk xam-xam. kàttan day ànd ak xam-xam. Mm-hmm. ay ci ñu dem ci combat bi. waaw. man koy dóor ay galañ. waaw yooyu yëpp xam nga lii débat bi am na njariñ ci làmb. très bien ça loolu tamit laaj nga question bu am solo. kooku xam naa ne dinañ ñëw beneen thème ñu waxtaan ci affaire diva am na ci yoo xam ne yii day dalal sa xel rek day baaxal sa moral. xam nga nit buy jëm ci dara. Mm-hmm. yàlla defal ko sutura mu am cee xel mu dal ànd ceeg moral bu baax mm-hmm. xelam day day da koy dooleel maanaam xel mu dal day moral baaxal moral mm-hmm. day dalal sa xel day dalal sa xel waaw est-ce que xam comprendre xam naa bu baax fi nga wax waaw bu sa xel dalee sa moral bu baax maanaam dalay dooleel loolu rek mooy base bi waaye fii am na affaire boobu mu jox ma yëngal leen su ma ko joxoon ma yëngal ko du ma daan dara te ñun ñu fi seetaan ñu ci ba tey bu ñu demoon yëngal ko tey duñ daan dara kon xam nga am na ci loo xam ne day am lu ko jiitu loolu ñëw complété ko. mais père man ànd dem naa stade fekk fa mbër moo xamante ni champion la ci làmb mbër mu ah, mag. waaw ah, muy sangu di sangu ba mu yàgg jékki-jékki xool yaram bi ne gàllaaj yu baax laay sangoo parce que sama yaram bi lu ci taxaw rek damay yëg ni lii di dugg sama yaram baax na. waaw loolu tey bu ko waxee ko weddi. Ah. xam nga mag mu toog ne gis gisuma asamaan bu gëmoon ne gisuma ko munoo ci dara. déedéet ne gisoo ma ko. Hmm. waaye ne yaram dafa fekk ne booba ñeme ne ki muy bëreel. ba hmm. pare am na condition physique bu baax. ba hmm. pare ñeme ne ki muy bëreel xam ne ki muy bëreel moo ko man Mm-hmm. loo tax mu ne gala yi dal na ma tey sama xel maanaam bi muy dugg si jóge këram di ngemu si li ñu bëri si waaw maanaam moral bu di bu baax la indiwaale yëg na boppam daal yëg na boppam yëg na kàttanam yëg na dooleem xam na ne kii may bëri tey jii euh, te amul fu mu jaadoo ci tey looloo koy waral rek waaw loolu loolu ay ñu dem ci combat bi waaw ñu ngi léewaatoo ci taxawaay bi gis nga waaw taxawaay bi kii gauche teg kii tamit gis nga kii tamit gauche teg mooy hmm. euh, booy bi ñuy wax Reug Reug Mhm. gis nga ko taxawaay bi baax na kii tam kii taxawaay bi nag nii mu ñool la nii mais war naa gën a mën a wàcc laa ci tànk bi ci ginnaaw mhm. aj gàdd bi dox ci kawam nga xam ne day fël ar rek mhm. waaw loolu moom taxawaay bi dafa jub de trop quoi gisoo di tànk yi jooy nii wàccoon fléchir tànk yi tuuti comme nii kii taxe ci la doole ji doon gën a ñëwee père lii dafa am ci combat bi lu ma ci seetlu waaw muy Gris 2 combat bi mu bëree yëpp pied droit la jiital waaw combat bi mu teg pied gauche stratégie la wala fooram lu mëneewul très bien ça xam nga waxoon naa la fi ci analyse yi lay passé ne la ah, ah. dafa am noo xam ne mbër bu ko taxawee ah. bu bëggee xeex ci lay mën a xeex mais du ci mën a bëre uh-huh. yaa ngi rappelé wu waaw maanaam pour moo taxawee gauche hmm. ci laa man di sama crochet gauche bi ci lay baaxee mais foog ma taxawee droite hmm. foog ma taxaw droite pour a jëm direct droite mën a ñëw hmm. crochet gauche comprendre nga la wala boog ma mën a kii du ci mën a bëre waaye pour sama droite bi mën a dal foog ma diital gauche bi dégg nga li ma mën a jëm direct goos mën a ñëw crochet droite loolu ak ça arrive waaye loolu wóorul ci bëre. lu tax ku la koy jàngal ah yëpp tam gis nga tey fii ne tey ku tànk bi bu fekkee mënu koo bëre. Hmm. fii ne tey ji ku bu ko waaj a bu ne coppe tànk mu xool fi muy tëdd. mbër day teg tànk bi nga xam ne bu moo la lancé boo fertee boo coppee sama tànk ma bëri parce que man damaa bëri tànk ba. Hmm. fii mu ne am na yow xam nga bëri woo. waaye am na tànk boo xam ne ku ko laal ci yow nga bëri. waaw mais en tant bu ñu ko laal boo xam ne bii ko nga xool fi ngay tëdd maa la ko wax nangu nga loolu nangu la loolu lañ ci yëpp nag yàlla moo mm-hmm. bindee doomu aadama noonu mm-hmm. dafay am côté booy foore ak booy feebale mm-hmm. côté bi ngay foore moom ku fa jaar moom foog nga def dara mais côté bi nga feebale moom saa yu fi jaaree moom xool fi ngay tëdd rek ci des parce que mu ne woo ko moo tax booy jàng xeex da ngay jàng xeex pour yéen ñi may seetaan ak mbëri yi seetaan kuy jàng xeex pied gauche laa mën a dama jiital gauche am arrêt de di employé sama droite boo feelee gauche boo ne bii ma laal sama loxo ne la niib téye la ñu bëre loolu mooy xam-xam bi. waaye teg jiital nag bëgg a xeex bëgg duma waa ji ci ponkal mu toll yow sutoo ko ëppoo dama koy duma naa teg teg bi parce que gauche bi mënu ma cee bëre boo tegee tànk boo jubul boo jubu rek sax sa doole wàññi ko na. est que comprendre nga. comprendre boo tegee tànk boo xam ne jubuwu la. Hmm. foofu rek foofu rek foofu rek sa doole wàññi ko na. Hmm. moo tax sa taxawaay ba dëgër. taxawal tànk bi nga xam ne bii mën naa koo bëree boo taxawee sa taxawaay day dëgër. Hmm. parce que tànk bi nga jiital mën nga koo bëree mais jiital tànk boobu pour mën a jéem mën a xeex buñ la feetee rek nga dem teer man gis naa fi mbër xam ne leen daane dañoo jiital tànk bu bëgg a xeex te mënuñu ta mbëri xeex tànk boobu. ayca ñu dem ci combat gis nga leewaato hmm. hmm. ah, gis nga. xoolal xoolal yóotu bi gis nga. xoolal xoolal nekk ci mu jam léegi. waaw gis nga xoolal. xool nekk ci gauche bi ni muy gis nga nekk ci bi muy jam nii. fu muy jamale ci nga xam ne da ko bëgg a exploité mais jibu ko. Mhm. waaw. ñu ngi leewaatoo ba ñu ngi leewaatoo waaw. bu tax mu ngi dox ndànk jëm ci kaw. loolu yëkkil mu ngi gis nga voilà gis nga. na ko kii nag voilà të tëru. Hmm. nga lii dañoo daje su lii du tëru. Hmm. dafa doon song moo góoru ko ca kaw ñu jàppante ca kaw tëru mooy nga song mu jàppante ca suuf. ah loolu lay tëru. voilà tëru mooy waa ji di la song si. Hmm. nga ne nga féete ko suuf maanaam mu def nii nga tëral ko ci suuf. tëru ko dóor ci suuf wala nga tëru ko yaru ko loolu mooy tëru. Hmm. waaw mais lii dañoo song ah, da koo góolu ca kaw da maanaam dañoo daje. waaw da ko da koo daw bal ko ci kaw. Hmm. dëbb naax dañoo dëbbante taax ñoom ñaar bi parce lii mooy li nga xam ne moo arrangé rëg-rëg mi. Hmm. waaw rëg na ne jàppanteeg waa ji rek mooy mooy moo moo mooy jeexal bëri bi xeex bi doo am njariñ ci moom. parce que da koo sut ba pare bon te waa ji gën a yaatu. léegi moom ci biir fexe bu déplacé ñaari pas ñetteel ba day fexe ba jàpp ko gis nga hmm. moo tax mu roof ko ba ñaar loxo ma nga ci biir gis nga loxo bi dugg na xam nga hmm. kii loxo a ngi ci biti hmm. gis nga bee loxo moom gisuma ko waaw mais fii mu téye nii loxo bii mu dugg ci biir du génn ci biti nii su ma doon booy giri dama ko nangu instant jàpp bi kon kan la gën a arrangé actuellement kii la jaa gën a mii la arrangé ah. parce que bal na ñaar loxoom ci biir ah. sa ñaar loxo ci biir ah waaw kenn ñaar loxoom ne ci biti loolu danger la ci mbër bi ñu ko def ñu dem gis nga xoolal gis nga téye ngemb hmm. gis nga téye na hmm. téye bi yëpp xam avantage xam nga kii téye na kii téye ah. eh, fii lu réy ngi fi yow yow sawaay ah. waaw déglu ma ñëw xam nga moom rëg téye na ci fal flange ba mu dëgër ah. kii itam téye na xam nga avantage bi fu mu nekk ci rëg la mooy loxoom dafa féete biir ki loxoom génn loxo bi féete côté bële waaw loxo bële moom gisuma ko mais xaw ma mu nga ci biir wala gisu nekku ci biir loxo bii ci biir mais loxo bi rëg-rëg mi loxoom bi ne ci biir nii avantage bu rëy la kii loxo bi nekk ci biti nii de désavantagé na ko. Mhm. parce que loxo du nekk ci biir loxo day ne ci biir. ñu dem. Mhm. ayca ñu dem et puis encore kaay. Mhm. taxawal ma ñëw boppam bi mu génne ci biti. du woon yoon. moom giri de waaw boppam du yoon. bi ñu jàppante nii. da waroon fexe jiital tànk bi mu mën a bëri indi ko ci kanam fexe boppam féete ci biir. ndeg ngeen ko maanaam. waaw boppam bi dafa ne ci biir rek. waaw boppam dafa nekk ci bu nekkee ci biir xam nga bu bopp téenee nii. Hmm. du gis taxawaayu waa ji hmm. te waa ji rëg-rëg mën naa des éclairs mais du ko gis hmm. parce que bopp bi dafa génn mu téen xam nga ne moom bu ma téenee mënu maa gis ci suuf déedéet <laughs> doo mën a gis léegi nag moo tax ma ne bopp bi mu génn fii sax du yoon waaw ñu dem taxawaay bi nii du yoon day jiital tànk bi mu ma ne ba pare jéem a dugal boppam ñu dem fii nag jàppante bi dafa mel ni dafa yàgg waaw day yàgg xam nga lan la parce que fi mu ne nii moom fi mu téye fi ne nii moom rek euh, jigéen fi mu téye mënut a def dara. Hmm. parce que ñaari loxom loxom bi ne ci biti nële loxom bii ne ci biti kii loxom ci biti toujours kii moo ëpp avantage. Hmm. fi ne tey bëre bi Reug Reug moo Reug mooy diriger. Hmm. ñu dem. ayca ñu dem. ñu dem. waaw ah, damay téye rek ne ko déglu. te gis nga waaw. xëy na bu féete woon ne di nga mën a gis loxo ba fan la jàpp waaw. Hmm. Hmm. mais fii moom loxo bi baax na moom fii moom loxo bi ne ci biir waaw moom mooy diriger bëri bi. ñoom ñaar ñu ngi noonu ba tey. Euh, waaw ñu ngi nii waaw. mais Reug Reug fi mu toll nii da koy pousse. gis nga xoolal gis nga peese bi. dellu waatal sëñ Bass dellu dellu taxawal foofu. waaw taxawal foofu père. gis nga fii pousse bi. Ah. xam nga <laughs> fii pièce bu rëy fi ne. moo tax gis nga bëri. Euh, bëri dañ koy mën. Hmm. dafa am loo xam ne duñ la ko wax waaye da nga ko yëg sa yaram. Uh-huh. gis bi mu ko poussé. Hmm. mu dem mu gisal mu puusaat mu résister. Hmm. gis nga résister ba mu des. Hmm. bañ boobu mu bañ ci la xam ne bu tëlee mu dem. waaw ci te buus boobu mu buus mu dem. tël bi ci ci la ci la tël bi ñëwee. parce na ko ñaari yoon. voilà voilà gis nga poussé ñaar. na la pousse mu dem. gis xam nga lu ma waroon def. waaw ah. puus bi day ànd ak moom rek bu ko usee day dem rek. Ah. su ma xëccee ma ñëw ànd ak moom. Ah. su ne bëgg ñëw ma taal sama loxo. moo tax loolu lépp xam lu ko indi. mooy loxom bii ne ci biir kii loxom bii génn rek indi bëri bi yëpp. te na ma ne loxo ba rek gisuma ko waaye mu ngi ci biir. kon gris de loxo bi génn ci kaw dafa. danger la ak boppam bi teen nii nii. boppam bi génn fii nii. danger ci moom ak loxom bi génn ci biti te xam naa ne côté bëri tamit lool la fa gërëm mi am mhm. kon avantage bi yëpp Reug Reug ko am fi mu ne. Hmm. ñu dem. ayca. voilà gis nga. voilà xool tànk yi. bu koy puusaat. waaw gis nga mu koy dugal gis nga gis nga tël bi. xool gis nga tël bi nii. Hmm. xool moo tax gis nga xool xool loxo rek Reug Reug bi. fi mu jàpp dafa baax. demoo déggoo maa ngi ba mu téye loxo ba ca biir rek. Hmm. laal ne bëri ba jeex na. fa parce que avantage bi kii loxo bi mu génn ci biti kii loxo loxo ne ci biir te mën na loxo bale wóor na mën a ne ci biir kii day daal di ñàkk parce que kii fii ne xam nga lan moo ko fi mënoon rek te waxoon naa la fii de dinaa ko répété waat. Hmm. bëri ku ko mu ñaari ku ko mënul ci bëri mënoo bëri. mooy riñaan ak rasu. riñaan ak rasu. waaw fii tey ji xam nga xam nga ngir gi lu mu waroon def. Hmm. jéem a rëcc rek ci woon jéem a rëcc nag fii foog nga mën a bëri pour mën a rëcc fii. Hmm. fii ni tër bii. ku mënta bëri mënoo fee rëcc. maanaam xarañte bu wóor moo la ci génne. waaw xam-xam bopp dëgg ak xam-xam. xarañte bu wóor moo la fii génne. waaw fii da am xam-xam. parce que xaw xam nga xam tël na loxo bële ah. tànk ba ba tànk ba jóg noonu hmm. léegi benn tànk nag mënoo ko taxawee di am doole itam déedéet mos ngeen gis ko am benn tànk am doole déedéet ah xool ko xool tànk bi naaw na xool bii teew hmm. te loolu waru woon te tël bi waru woon hmm. parce que tànk bi bu jógee rek amatul doole benn tànk la taxawee xoolal rek rek ñaar tànkam yëpp a taxaw ci suuf kon kan moo yor doole ji moom nit ñaari tànk la xam nga boo taxawee benn amul tànk seetlu leen bu doomu aadama bu ko yàlla nattoo sax ba ñu wàññi benn tànkam sax fa mu tànk bant. waaw pour mën a dem. Hmm. dëgg la wala fen la. dëgg la voilà léegi nag xool kii taxawee ñaari tànk. waaw fële tànk yi yow sa tànk ba de naaw ca kaw. Hmm. bii ta bii tànk rek tegu. Hmm. te tegu bi sax baaxul. ah mu ko te gis nga yow kon gis nga loolu. ah jëli léegi mën a bëri de. waaw ah, non père man sans pire. ndaanaan nga de dégg nga gis nga léegi ne tànk bi xam nga tegu ba baaxul. mais nu def te et li avantage bi mu gën a am tamit ñaari loxo loxoom yi téye ci ngemb li ba dëgër téye bële ba mu dëgër hmm. bu tëlee rek mu dem ay ci ñu dem gis nga tànk ba dugal tël gis nga tël bi day lay day dem ko tëlee giri fu mu tëdd rek lay xool day ah nu muy def loolu loolu ko des loolu ko fa des fii nag fii nag fii ne nii hmm. bëri boobu woon a ëgg si fii hmm. waru ko a may lii ba ñu ba ñu àgg fii mais loolu la tax mu di ko mën nag day fekk mu am xam-xam xam ne lii su ma ko mayee ñàkk naa bëri dafa am loo xam ne da xam def nga koy def sa bopp xam ne lii su ma ko mayee rek ñàkk naa hmm. loolu nag du ma ko mayee yeetal ndam ngay wuti may wuti ndam hmm. am na loo xam ne bu ma ko mayee ñàkk naa du ma la ko may du ma la ko may ci àddina mukk ci àddina hmm. parce que mooy mooy loolu ko arrivé bii nekk ci bëre bi gis nga fii ne lu may des mooy samp loxo bi jéem a tël te fekk fi tël kii tël bi rek boo loxo tànk bi jógee benn bi dee rek ci jeexal bëre bi jeexal ñu dem gis nga ko wala jël bi rëy na gis nga ko et puis li ko waral yëpp yëpp yëpp gën a a tam ci bëri bi hmm. mooy kii dafa foye ndaw mbappat kii foyewul mbappat hmm. kii foye na ndawam ci biir bëri kii foyewul ndawam ci biir bëri hmm. waaw Gris Bordeaux nag man su ma ko doon conseillé tey li ma koy conseillé ah. mooy na gën a contact yokkaat xam-xamam la ma ko waxoon ca TFM ci lay di tigre ah. loolu laa koy conseillé rek mooy mat na mbër am na taay bi na gën a góorgóorlu yokk xam-xamam mais per euh, li ma bëggoon ñu ñu gën ci taxaw. seen muy écurie bu mel ni écurie Fass. Mhm. est-ce que war nañoo ngemb mbër mu mel ni Gris mhm. muy bëreeg rëgg-rëgg. Mhm. Euh, muy teg pied droite. ñu ko koy changé loo ci combat bi. ah bi ci écurie Fass. mais déggoo Moussa Gueye wax. Hmm. nee na bi mu ko gisee bu toog ci biir géew bi. Hmm. bi mu tegee gauche bi dafa jaaxale. kon daanaka kon est-ce ñoom ñoo ko ñoo ànd ak moom encadré ko ci combat bi. loolu kay ku ne ci góob bi laa gis mu teg pied gauche kay ki wax kay ko encadré ko ci combat dafa bari ci mbër yi. Hmm. naa la wax lenn. Hmm. nañu moytu loolu ay wor la. Hmm. te war baaxul in alxuraan la ñuy wax inna allah laa yahdi kayda xaa'iniin. barab bi dafa ñu wax ci téere yu su yu sotti yu suba nañ man yàlla du ma jubal pexe workat. mooy ñuy ànd ma di la préparer nga dem ma teg la stratégie bi bëreel nii nga dem ba làmb ji indi si stratégie bopp war la boo Mm-hmm. ak ku mu mën a doon boo ko defee daanoo yaa ngi dégg li ma la mm-hmm. parce que ñoom lu bon bon am nañu xam-xam dégg nga Moustapha Gueye ku ne xam ne mën naa bëri mm-hmm. Ibrahima Mbaye jaar na ci bëri Alassane Diakhaté dem si yàlla yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana Alassane Diakhaté mën naa bëri dégg nga seen grand frère Mbaye Gueye te nekkoon policier kooku am na lu mu xam ci bëri dégg nga kon tey ji mu ñu amee adversaire bu mel ni Reug Reug war nañu mën a teg ko toog ko toog waxtaan lii lay bëree waaye bu la defee nii defal nii lii nag bul ko mayee parce que adversaire bu tiis nga am bu mbër kaamil nga am ki nga am bu defee ne nguufañ nga am ndaanaan nga am. kon nag lii moo ci li ci génne mais loolu boo ñëwee entraînement sax nga dem ci benn boxeur boxe amul song. déedéet nga dem wala nga dem ci benn karatéka. Hmm. amul song. déedéet nga dem ci benn aikido. Hmm. mu dee jàngal xeex te amul song. Hmm. ñoom seen ar amul song. amul jàpp tànk. ñoo ñu boo demee ñu ne la préparer jox ñu ne la préparer combat naan la taxawee nii. waaw parce que dafa am loo xam ne boo taxawee dafay hmm. moom mooy li ma la wax sànq. mooy nga jiital pied gauche bi parce que pour nga am crochet droite mais hmm. ba pare am crochet bu baax yaa ngi dégg wax hmm. fekk na mais boobu mënoo bëri droite amoo song. bu ñu ko songee da ngay xool fi ngay tëdd bi mu ko tegee indi gauche bi tamit gis nga ko. Moussa Gueye man man naa moom bi ñu ko tàmbatee ne ma làmb ji laa gisee loolu. kon xam nga ne kon tey gisuloo te préparation ba toogul woon. et puis benn nañu mooy tamit lenn. Hmm. yor mbër yàlla may ko xewal rek muy bëri commencé ay bëri ay million rek nga rus koo wax dëgg nga rus nga ne la man boo yoree million dix million ak cent millions ak cent mille francs laa yemale. Hmm. dégg li ma la hmm. mën a ma bàyyi la ci écrit bi mënoo maa déggal nga ñëw ma jox la seen sànni wutul feneen. ak ku mën a doon nag. boo doon bëree cent million laa wax ngay bëri deux cent millions wala ngay bëri cinq cent million kurpeñ yi yow la xaalis bi yow la. li may wax kay ñëpp ngi may dégg dama ne kurpeñ yow la xaalis bi yow la. kon tey man dam rek félicitation sa booy bi daal na laa ci am xëy boo ci dee lekk tuuti laa cee lekk. kon da may mën a déggal mënoo maa déggal ma jox la sa licence seetul feneen parce que gàcce gi bu ñëwee ñëpp ko bokk. waaye nag kurpeñ bu ñëwee yaa xaalis kurpeñ yi yaa moom waaye xaalis bi yaa ko moom. yaa ko moom waaye xaalis bi yaa ko moom du mooy. dëgg la fen la waaye gàcce gi bu ñun wax dégg nga wax kon tey ñi war nañ toog nañ toog na hmm. xool ne man ku ma déggal ak ku mu a doon boo doon champion du monde sax da ñuy déggal jaar ci suñu stratégie ñu déggal ñu téye la hmm. mënoo ñu déggal ma jox la sa licence ah comme yow déggaloo boo amee sa combat yaay wut ñu la koy préparé hmm. te bu gàcce gi ñëw ñun ñëpp koy bokk bu sa poche dégg nga demal wuti feneen ah mais loolu rek la de. loolu kese la de. loolu nag fu la fay koy def ah. waaye bu nit ki defee lu baax nga gërëm ko léeg-léeg mbër toog daal ne baa ngi sant diw nangam nangam te fekk na sant boobu nga koy sant kat gisu la déggu la hmm. man def naa ko ki mbër waaye damaa dem ci télé ba leeral ba wu leer ne kooku ne sant mo di ma gërëm gisuma ko dégguma gëj naa gi gis xaw ma ci moom dara te pourtant mënoon naa bàyyi ndax victoire ba mu am rek hmm. déedéet dama leeral victoire bi ne kooku mu dem bu daanee boppam la bu daanoo boppam la gisuma ko dégguma ko. maa ngi sant Pierre jàpp na ci te fekk ah, maa ak Pierre gisuma ko sax dañ na ñoo gisee <laughs> ba mu jëlee wala laa ko dégg kooku boo boo daanee man du ma la gën ma ko ci tiitaru soo daanoo du ci tiitaru boo daanoo du ci mer waaye école moom dootoo fi teg tànk moom. jërëjëf parce que gàcce gi ñun yëpp koy bokk. dëgg la waaw jërëjëf Père Birahim euh, hmm. mbokk yi tey loolu lañ leen indiloon ci jàngat làmb ji mu dox ci diggante komba Gris 2 ak Reug Reug mu doon combat boo xamante ne combat bu neex la combat bu amoon bëri la am hmm. technique euh, per Birahim Ndiaye dégg ngeen li mu leen ci décortiquer lépp. mu lay wan ni rek mbokk yéen yéenay taamu li nga xamante ne mooy seen combat baay Djily ak Père Birahim ñoo toog ci plateau bi defal leen ko Père ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. waaw hmm. waa jërëjëf Djily di kontaan rek ci hmm. question yi ni ko posé hmm. wax dëgg yàlla leer na ma maa ngi ci wax lu ma xam. rafet lu ma xamul tamit ne xaw ma. lépp leer parce que doomu aadama mënut a xam lépp. parce que nit moom da ngay am loo xam am loo tële rek. li ma xam daal ni ma ko gisee wax naa ko ni ma ko gisee. ñoom bëri yi nga xam ne bëri nañu ku ci wu ci laal xam nga ku ci xam ne père bi daal li mu wax am na dëgg la ku ci xamoon ne ah xëy na bokk maa ngi moom gis-gis hmm. wala wax naa tuus naa tuusee naa la ci loo xam ne waruma ko wax ci wala dara hmm. nga maa lay jégalu hmm. parce fii ñu taxaw ci wasaare defar rek jubanti làmb rek jubanti champion yi fi nekk rek parce que ñu ci bari tey jii ñu ngi ci làmb ji di kës-kës yi waaye amuñu base parce que amuñu entraîneur amuñu ku leen di jàngal bëre parce que bu jili dama lay wax loolu dinañ ci ñëw itam hmm. mooy kuy jàngale bëri day fekk nga mas koo fooyee hmm. bëri amul ci livre bu ñu ko defee jàngee amul ci technique bu ñu ko jàngee lu dul ki ko fooyee hmm. ci mbappa di fooyee ko ci arène bi am ci tàkkusaan kooku xëy na boobu mën na laa ci wan ne ah lii de boo ko defee di mooy nangam naa kooku xëy na mën na cee wax te loolu it may yàlla rek lay doon nga wax lu ñu mën a dégg wax lu ñu mën a gis. Mm-hmm. loolu mooy suñu borom dong la. kon ma di la sant di la gërëm di gërëm caméraman yëpp. Mm-hmm. di la gàkku maa ngi lay gërëm maa ngi mm-hmm. gërëm Adama. di gërëm Bassirou Diouf maa ngi koy nuyu di nuyu suñu doom yi ñëpp daal gërëm ñëpp. di ñaan site bi yàlla yàlla da ngeen ci def jàmm gën ci def sutura gën a avancé rek.